am information yu wér te wóor abonneel Jeri Jeri TV bés ko. asalaamualeykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu seen télé bi di leen sargal di wax les bienvenus du Ndiaye Rose boo boo ma siy laaj waruma gàkk ndax kooku góor gu baax la woon góor gu am fulla góor gu am fayda góor gu téye njabootam góor gu téye ay soxnaam góor gu téye njabootu jàmbur moom defe naa ne àddina bi yëpp ay njabootam la li ma wax keroog ba ngay dem France sax tajeeg benn tubaab mu ne Doudou Ndiaye Rose ko jur waxuma laa nit ku ñuul Tukoy koy binjaay rose waaw loolu su ma ko laajee dina ma yomb lool Na presko turno yung bari ang naa mo. Diyan nung nañ tournée France en 1994 def nañ France yëpp Europe yup, def nañ ko ñu tournée bu neex tubaab yi nag xam mooy kan waa Sénégal xamuñu koy Dundiya Rose àll bi ñoo xam génn bi moo xam kuy duñ jàpp hôtel yu neex lañ koy dalal hôtel 5 étoiles fu ñu dem ñu teg ñu si kaw ñu ñuy génn si buntu hôtel bi ñu xam dafa ñu ñuy génn wala spectacle tas ndax nit ñi taxaw di ko xool pour gis kan la pour mu defal leen ay orthographe muy orthographe di orthographe rek mu nit ku baax tournée yu neex yoo xam ne demul tournée rek jël xaalisam yemale ko ci boppam déedéet doom yi muy jur ak yi muy ànd ñëpp da leen di fay normalement da leen di fay ba wëlbatikuwaat fayaat leen xaalis képp ku muy àndal da lay faj soxna bu mu àndal da lay fay li muy li lekkul dara bàyyi kenn foofu lay toog. woo Tafa nga xam ne moo fi nekk ak moo fi nekkoon ak moom fii ne ko génneel ma tant de millions nga tegal ma ko ne pour ña des Dakar génne tant de millions teg ne pour ñu des Dakar bu ñëwee ñuy woote ñu séddale ñu séddale ñu séddale ba xaalis la ne pour la jeex bu yoree xaalis tant que jeexul du bu yoree xaalis nag gan bu ne asalaamaaleykum day kontaan day ree dana ko tonton kii seetu la de man lay seet mu naa ba tey la seetu la seetu ma yow lay seet waaye ba tey man lay seet luy dem dindi xaalis bare na am jox li meer bi di ndey sax même si yàlla si doon wax nee na duñ jaaro bu gisoon yàlla sax may ko kon kookoo mën a maye dencul dara pour ëllëg denculul dara dafa naa ñu génnee àdduna naa 30 000 francs la fi lu mu yooyu jox na ko njabootam dugal na ko si këram lekk nan ko allah naan nan ko jox na ko njabootu jàmbur jox na ko famille jàmbur da lay jox léegi sa dépense wala mu jóge tourné ñu ñëw léegi may la xaalis nit ñëw léegi ne ko sama courant baat sama kii mu ne abal na ko nga abal ko mu ko kooku yow pare nga si kon ku muy gën jaay mu jóge fa ànd ak tournée Amérique ñu def les 52 d'États d'Amérique loolu yomb am na ñu dëkk foofu te xamuñu ko ñu defee fi tey suba def nañ 3 mois ñu defee fi tey bu ëllëg di dem fee ba ëllëg ah gannaaw ëllëg ah. tournée bu neex defe naa defe naa sax tournée boobu la mujjee def tournée Amérique tournée bu neex parce que foofu it fonk nañ ko xam ne mooy kan fu ñu dem day fees. dañu dem si dëkk boo xam ne day wéeti wéeti wéeti wéeti ne ah fii de xanaa Sénégal amul ñun suñu spectacle bi tey tey yàlla na fees mais ba la ñu naan nii spectacle day fees ba boole ko ñu ne guichet fermé kooku mooy du njaay boobu kooku mooy l'homme de kooku moo def euh, le du centenaire de la révolution française li ko gën a marqué mooy loolu journaliste bu ñu ko daan laaj la gën a neex dafa naan li ma fekke du centenaire de la Révolution française moo ma gën a neex ci sama àdduna xale yaa ngi koy waaj ñu di koy def ñu neex ñu lool man binjaaroo su ma ci woo rek damay taxaw ndax nag day góor gu baax teral jigéen macha allah tubaarkàlla kon nag bu bu Macky Sall amee bi initiative ndax sa si dundam si feewu dundam presque waxoon na ne ku ko rendre hommage muy dund bu deewee bu ko kenn defar bu ko tuddewul dara bu deewee bu ko kenn defar waaye moom day quelqu'un ci dëkk bi wax na ko rek waaye Macky sàll xam na ne kii dem du ko ndaw ñu jël lu toll grand théâtre ci dëkk bi njaay ko mboro neex ni lool baakan nag jëkk fa joué ndax hommage maam la suñ sa moo ko jëkk defal hommage bi mu gaañu ba am ñaari at sora soraanoo manche bu neex la ko defal ñun ñëpp ñu def deuxième fois bi Bakar rendre ko hommage ki nga xam ne grand théâtre moom lañ ko tudde xam nga loolu dafay def euh, dafa am lu muy def ci réew mi am na lu muy def ci bés bi ndax bés bi réyul borom bés bee ni nel muy alaaj bi Ndiarose Bakar nag lii mu def dafa rëy lu toll nii alaaj bi Ndiarose koo xam ne def na partout dans le monde lu ne def na ko fu ne dem na fa fu ne dugg na fa macha allah tabaarkàlla ngay xëy di ko defar hommage dugal fu ñëpp nag waa këram yëpp mu dugal ñu dugal leen fi xam nañ ni Bassi Ndiaye def uh, ubbi benn panel def si waa këram yëpp pour wane ne dañuy rendre sans papa hommage pour ñu seet hommage bi nan lañ koy doxalee pour xale yi nga xam ne. dégg nañ gisante dégg nañ déggante dégg nañ waxante ñoom ñëpp di waxante si panel bi ndax ki ko tuddee moo bëgg a jàmm moo bëgg a ànd moo bëgg a salaam moo tax ñi daawul waxante ni waxante ñu gëjoon a déggante ni waxante ñu gëjoon a gisante ni gisante macha allah xale yi daal li ñu def dafa neex te baakal li mu def. amu ko sax def nañu lay loo xam ne du gënuñu du gënuñu trop ndax duñ jaay rose rek da koy rendre hommage fii si dëkk bi dëkk bii te réussirul gëwma ko dëddoo moo ñu marqué ba lii man dafa dafa dama suma toogee fii image mooy buy dugg si moo nekk sama ba léegi bëggoon asalam seen fu mu tourné mu ngi asalam seen danaa def bu añee dama ko tàmmaloon goûter loolu bu jot bu añee rek ñëw allah dëddoom daal li ñu si marqué mooy dem bi ma dem dem bi mu dem brusquement bi mu dem loo xam ne ñun temps boobu deful dara xëy rek brusquement ma dem noonu boo loolu moom daf ma marqué man ba léegi ba léegi daf ma marqué ndax daf ma bett ndax woo na ma dama génneel ma yëri damay dem faas waaw damay dem faas sa diggu weesani ma ne ko fekk ñu nekkoon fa si bay bi noonu mu ne ma comme comme tey du saras si suba la saras si xam nga rek kii la gaañu maar bi maar bi fii la jóge dem faas si guddi gi mu woote ñu xëyee mu woote ne ma génneel ma yëre ndax damay dem faas moo fu jógee damay dem foora ndax Alaaji Njaay yónnee na pour ñu jënd nag xam nga mooy sëñ ak doomu weesal ma ne ko ah ma waaw ma génne yëre yi jël dàll yi maa ngi fomp ko su may fomp dàll yi sama yëre laa koy fomp jël sama grand bu sa fomp mu sotti jël yëre yi fomp teg jëkk jékki rek tëdd dama feebar muy mercredi bi sama jàkk bi ne ma tata waa sama ram bi metti waaw lu ñuy taal ay ñu génne fi duñu taal ay man ngi xaar dem ba ñëw jël si ko ah yére yi mm-hmm. ma toog si wàññi bi taal ku yéeg ndekk gaañu na ku yéeg wàccaat ku yéeg wàccaat ku yéeg wàccaat ku yéeg bés boobu kenn du ko fàtte ba léegi mm-hmm. bés bu njaaru soobu kenn du ko fàtte li ma gën a marqué si nit lool la ñu booloo rek bokk ndey bokk bàyyi nag te jàppale ko jàppale nag te def hommage jàppale ko bu baax ndax mo réussir ndax lu tol ñu du jaay rose ñu ko rendre hommage oh, te du réussir kon nak njaboot gi yeb dañu wara takko and ak baakan jàppale ko ba hommage bi réussir ba mu doon ci hommage oh, yi wax di ko waxtaane njabootam daal maa ngi leen di dénku ñoom ñëpp ñu takku bokka ndey bokka bàyyi comme ñu ko defee parce que seen papa loolu rek la bëgg li mu bëggoon ñu defar ko ci hommage bi bokk na bokk bàyyi ànd jàppale baakam ñi nga xam ne initiative bu rafet bii moo ko moo ko def ñu jàppale ko si ba yëf ci réussite totale